nasru muminin bi xettali jullit yi ci mboolem seeni jafe-jafe nasru muminin garab ak gàncax andi leen xéewal gu rëy muy ay xeetu jaaro yu doy waar lool te li ci gën a yéeme mooy ku nekk da ngay xoll sa tabia ba xam sa nature lan la ñu door laa jox nag jaaro bi dëppoo ak yow maanaam jaaro bi dëppoo ak sa tabian te day ànd ak cuuraayam ak parfum gaaw lool efficace lool te mboolem ñi utiliser jaaro yi nee nañu da ngay takk rek tàmbale gis résultat te njëriñ li mooy ubbeeku bayre ak kaaraange gu mat sëkk ngir am ci jaaro yi lu jiitu da ngay xam sa tabia maanaam sa nature lan la ba pare ñu door laa jox jaaro bi dëppoo ak yow moom Nasru Mominin garab ak gàncax di yëgal mbooleem ay clientam ñi nga xam ne dañoo bëgg xam seen tabia maanaam seen nature seen couleur seen bis ak li gën ci ñoom daw leen gaaw woote ci numéro téléphone bi 445 04 79 ñu xoolal la say mbir ba noppi jox la jaaro bi gën ci yow Nasru Mominin garab ak gàncax di leen jox ay produit yu baax 100% naturel ci wàllu new kàttan ak ñu tuuti bëgg am yaram ak ñi am yaram bëgg a wàññeeku Nasru Mominin garab ak gàncax mooy xettali jullit yi di saafara seen jàngoro. di nuyu te di len jaajëfal yeen ñi safo seen kër gi di seen production ñu fas len andil histoire bu am solo muy histoire jirim histoire bi nak jangale gu reey mo ci nek ngir nga mëna comprendre jangale bi deug deug faaw nga top episode yi ba mu jeex tak comme niñ len ko waxe won ci histoire bi passé faaw ngeen top episode yi ba ci episode fin bi su boba jangale gi dana gëna am solo ci yeen te itam di ngeen ci mëna jangé lu bare bare bare bare incha allah ci noonu nag dafa amoon benn famille bu nekkoon doon dund ci benn dëkk bu mag bu nekk ca bawal dëkk bu mag bu nekk ca bawal dafa amoon famille boo xam ne dañoo nekkoon doon dund ca dëkk booba famille boobu papa ak doomam bu góor di taawam ak ñaari doomam yu jigéen moom góor googu nekkoon na ku sonnoon ci njabootam nekkoon itam ku bëgg njaboot nekkoon itam ku jàmbaare woon koo xam ne ba muy gën a nekk waxambaane di man doomam yi nekk lu ndaw daf doon góorgóorlu di sonn ci ñoom lool bëgg njaboot lool nag ndeysaan ba sunu borom dogal caatam mi nga xam ne mooy ñetteelu doomam mooy mooy doomam bu jigéen bi bi nga xamee ni ci lay juddu ci la way juróom bu jigéen ñàkk bakkanam maanaam ñetteel bi doomam bi bi nga xamee ne ci lay juddu ci la yaayam ñàkk bakkanam nga xam ne léegi soxnaam génn àdduna ca jamono yu yàgg ba léegi xale yi màgg nañ xale yi nag seen baay sonn na ñoom lool taxawu leen ak lenn ci ay mbokkam waaye jamono di dox ba mbokk yi gën a jëm mag ñu bari ci mag ñi di wàññeeku di wuy ji seen borom xale itam di gën a màgg borom kër gi itam mënalul boppam lu bari waaye taawam bu góor bii dafa sonn lool ci njàngam mi ngir bëgg a réussir mën a dimbale papaam ñaari rakab yi jigéen itam dañuy dem ci marché bi di jaay di jaay lépp loo xam ne faraatu nañ ko ci am njaay ñu andi ko ci kër gi ñoom jànguñu waaye ki nga xam ne moom mooy taawu kër gi di moor moor moom dafay jàng jamono yooyu moor moo ngi am ñaar fukki at juróom benn maanaam vingt-six ans moor moomu nag mooy taawu kër gi jamono yooyu moo ngi doon jàng ba nekk université nekk nag ku jàmbaare lool ci njàng mi waaye ndeysaan jamono jàpp ko lool nag bariwul moyen ndax papam manutul ñaari rakam yu jigen ñoy liggey di duggal ci kër gi moom moor taluta am soxna talul dara ndax mo ngi bëgg bourse biñ koy fay ci université bi tout li ci dundé li ci dess daf koy yonné bayam ngir ñu daf ko ci kër gi nekkon tam ku sonnon lool ci wayjuram ak ay rakam ndax dañu téla ñak seen wayjuru lamor ci nonu nak la mort nekké ci université bi di góorgóorlu ci université bu bàmbey bobu xamante woon na fa ak benn xale bu jigéen boo xam ne ca koñ boobu la dëkkoon ca koñu université ba la dëkkoon xale bu jigéen boobu moo ngi tuddoon Marème nekkoon xale boo xam ne moom itam jamono yooyu moo ngi am ñaar fukki ak ñett maanaam vingt trois ans kon Mor moo ko mag waaye moor ak xale bu jigéen boobu di Marème dañoo nekkoon ay xarit lool ndeysaan ndax Marème yaayam daf doon jaay ci wetu université bi di jaay li nga xam ne mooy restaurant ay lekk ak yu mel noonu bi yaayam génne àdduna nag jamono yooyu ak léegi war na man ñetti at bi xale bi am vingt trois ak bi di génn àdduna mat na ñetti at waaye am na ñaari mag yu góor magam yu góor yi nag dañoo tukki bitim réew waaye taxul nag seen njariñ bari maanaam ay nit lañ yoo xam ne bari njariñ ñoom ña nga bitim réew di liggéey te seen baay moo leen lijjantil ba ñu am ay kayit am visa mën dem bitim réew ku jigen ki mom mo ngi ci dëkk bi di liggéey di jàppale baayam njariñ ji mu amul baayam ñu nekk bitim réew sax amaluñ ko seen baay ndax ñoom ba ñu nekkee foofa daanaka ci seen bopp rek lañ nekk maanaam di solaka summeeku ak di photo ak di def video jugal ci internet bi taluñu dara ñoom daal àdduna lañ bëgg ak seen bopp nekk ji bëgganteeg ay xale yu jigéen nekk ci lu leen neex daal léeg-léeg bu ñu yónnee seen bàyyi balaa ñu ko yónneewaat day yàgg lool ndax ñoom kayit bu leen may ñu mën a ñibbisiwaat ci réew mi lañ amagul loolu lañuy layee jamono bu nekk waaye seen bàyyi moom dafa nekk koo xam ne kilifa la goo xam ne su xasee ba def devoiram li ci des day toog bàyyi ko ci loxo yàlla ba tax na doomam bu jigéen boobu di Marème moo nekkoon xaritam ndax Marème moom restaurant yaayam bi la yor di ci liggéey waaye di jàppale baayam soxlawul dara moom xale bu jigéen boobu lu am rek baayam la koy jox ndeysaan nekkoon ku jàmbaare waaye nag dafa xaritoo ak ki nga xam ne mooy moor moor mi nga xam ne moom itam ma nga ca dëkk bu mag bu nekk bawal ñëw ci université bi di jàng moor moomu diir mu ne ci université ba amu fa mbokk xamu fa kenn ca bambe waaye xale bu jigéen boobu nga xam ne moom mooy marem mooy léppam jamono boo xamee ne jël na ay kuuram ba noppi bu génnee day yàkkamte génn ba dem ci ki nga xam ne mooy marem ndax ci moom lay añee fa lay reeree fa lay ndékkee manam ration bi nga xamne mom la len wa université bi di jox sax des fois du ci jëfëndiku ndax des fois nam ko bëggee du ko mëna amé nonu ndax ñu bëri ci université bi dañuy jànkoonte ay quelques jafe-jafe ba tax dañuy genn dem di jënd luñu lekk waye mom Mor day préférer dem ci restaurant ndaw soosu jënd fa li nga xamne mom lay xewlo ndaw soosu dal nekkon na xaritam lool. ñom ñaar nekkon nañ ay complice lool jamono bu nekk ku ci am problème ci ñom ñaar ci sa walu dundu manam mom ndaw si su amee lu ko nakari ci ay fréram yoy nek nekk rew wala ci walu wéw yaram wala ci mbiru bopam day yakamti mor ñëw ba mu waxtaan ci mom mor jox ko ci xalaat ni ko itam moom ndaw si am sori wul tax jangon na bo wara dem université waye bi nga xamé né woy juróom bu jigen manam yaayam genn aduna mu yërëm papam lol lol taxon na mu décider dess ci kër gi di liggéey restaurant bi yaayam yoron ci buntu kër gi muy ben cantine mu yor ko di gérer ngir lum ci am dimbale papam ngir itam papam jëm na mak te ay soxlam day bari um soxla bu papam am rek mu taxaw ci lool ba tax am janggam, dafa muju yaq ay teewul mor mo koy dimbale lu bari ci ay cour ak yu bari yo xamné daf koy soxla ci walu jang ni ko non itam ndaw si fay jàppale mor ndax sha allah restaurant bi sunu borom dimbale won nako ci client yi daan ñëw bu baax mu ci genn da ci faj ay soxlam yépp ba daan na ci dimbale mor ci ay wéccat yu sa sewaan yi di soxla jamono boo xamee ne fayaguñ leen seen bourse niki noonu itam jamono boo xamee ne moor a ngi dellu ca dëkk ba événement jot na wala loo xam ne day soxla dellu ci ay mbokkam léegi nag ndaw si day génn ñaari junne wala ñetti junne jox ko ko ne ko maa la ko jàppale boo demee joxal ma ko say way wayjur ndeysaan moor ki ko gënal ci àdduna ginnaaw ay juram ak sëram mooy mareem ndax mooy nit ki gën a baax ci moom xaritam dëgg-dëgg waaye niki noonu itam mareem moor mooy nit bi nga xam ne moom la gën a bëgg ci àdduna ndax mooy xaritam seen xaritoo gi yéeme woon na lool te ñëpp ñoo xam ne dëkkoon nañ ca boobu xamoon nañ ne ñaar ñii ay xarit lañu ndeysaan noonu leen wéyalee seen nekkin ki nga xam ne nag moom mooy rakkam yu jigéen yooyu kenn ki moo ngi tuddoon faatu kenn ki moo ngi tudd ndey faatu mooy ku mag ki ndey mooy ku ndaw ki buñ demee ca marché ba jaay ba nga xam ne njaay mi demeetul noonu dëkk bi dëgër na tey dara nekkul ci kër gi dañuy woo ki nga xam ne mooy moor moor itam su gisee ne fayaguñ ko bursoom te kuur yi muy faral di def di ci am ay weccettam amu ko amul lu mu ci fayeeku maanaam dëkk bi dëgër na ci moom day dem ci xaritam boobu di marem marem danaan ko loo soxla rek bul ma rus ñëwal nga wax ma su ko defee marem day yëkkati junne wala lu tegal wala ñaari junne sax jox ko ko mu dem envoyé ko ay way juram maanaam envoyé ko ay sëram ngir ñu mën koo def ci kër gi ndeysaan moom Marème moom nekk ku baax nekkit ko jàmbaare lool ku nangoo sonn nangoo liggéey melul ni ay moroomam xale yu jigéen yi nga xam ne solo ko summeeku rek lañu gëm moom bokk ci ñooñu dafa bokk ci catégorie xale jigéen yi nga xam ne ñafee liggéey ngir seen bopp rek lañu gëm ndeysaan Marème moomu bi mu nekkee ci loolu xaritam boobu jamono bu nekk rek dafay ñëw ci moom moom itam léeg-léeg mu dem xool situation ci chambre ci université bi ngir su manqué dara lu mel ni ay yëre yu tilim wala mbàjj gu war a sàngoo wala lenn lenn li nga xam ne mën na ko cee jàppale en tant que jigéen en tant que xaritam daf ko ciy jàppale seen nekkin daal nekkoon na nekkin wu neex woo xam ne jàmm la woon te itam ki nga xam ne nag moom mooy moor nekkinam ca Bambey ca université ba su neexee ginnaaw yàlla mareem la ba tax na lu bari daan na ci waxtaan ak baayam da ci waxtaan itam ak ñaari sëram yooyu ñoom ñaari sërëm yooyu ak bàyyi ki nga xam ne mooy moor yàkkamti woon nañ loolu gis Marème ndax dégg-dégg bu rafet bi ñuy am ci moom ak jàppale bi nga xam ne moo ngi koy jàppale seen mbokk moom di seenub càmmeñ di moor ni ki noonu itam paa bi am na yàkkamti lool ak bëgg-bëgg ngir gis ki nga xam ne mooy Marème ci jàppale gi muy jàppale doomam ndeysaan jamono boo xamee ne moor ñëw na ci kër gi lu mel ni événement wala xew-xew wala yu mel noonu wala sax jamonoy fourrière nga xam ne jànguñu université bi dafa tëj maanaam kenn jàngul su moor ñëwee ci kër gi waxtaanam lu bari dafay tudd ki nga xam ne mooy mareem ndeysaan ñoom daal xam nañ ni mareem daal xaritu moor dëgg la ba tax na sax ki nga xam ne mooy faatu muy sëram bi nga xam ne maanaam rakkam bu jigéen bi nga xam ne moo ci gën a nekk mag daf daan wax moor lu bari naan ko waaw yow fi mu toll nii léegi nga am fanweeri at man gis naa ne toll nga ci war a am soxna waaw lan moo tax mi doo ko jéem a doo jéem a wax ak moom boog jëm ko cokkaas ci wàllu soxna ndax kii kat boo ko am jabar ju baax de ñoom bëggoon nañ lool moor takk Marème andi ko ci kër gi ndeysaan waaye moor jamono mu nekk buñ ko waxee loolu dafay dal seen kaw maanaam day mel ni ku mer daal naan leen bu leen ma waxati loolu yéen du ngeen jaawale ñu bëggante ak xarit li tax xarit góor ak jigéen mënatul mënu kenn mënu nangootu ko te marem mi li nga xamne ne dox sama digeentek mom moom ci xarito bu ngeen ci dugalee mbir mi rek yàqu ko waye bobu moom mo limi wax gëmu ci dara xol bi marem kep mo ci nek dafa bëgg marem lol am ci mom ciofel ndax xarito gi bu mu demee ba yag rek ci la mbëggeel duggu waye moom moor bëggul xarito gi yàqu ba tax na nangu toox marem dara waye ndekate moom itam li moor di yek moom na marem di yek marem itam am na gu reey ci mort ba tax na jamono bu moor demee seen kër dafay nekk di ko xalaat rek ni ki moor itam te kenn ci ñoom ñaar ñëwul a wax moroomam li xew ndax xaritoo gi yàgg lool ci seen diggante ak njàppalante gi yàgg lool ci seen diggante ndeysaan jamono boo xamee ni itam moor ñibbisi na ci université bi ba nekk ci njàng mi bu gisee ne ki nga xam ne mooy mareem xëy siwul maanaam liggéeyul tey dafay gaawante dem seen kër laaj papaam lu xew mu ne ko ah sa jigéen bi de dafa xawoon jagati maanaam yaram bi mooy mitti nga xam ne moor moo koy mujj taxaw jag-jagee ko yóbbu ko hôpital sonn ci moom lool mel ni daal frère am la mu bokkal ndeg baay li mu koy jëriñ frère am yi ñàkk njëriñ ya nekk bitim réew sax duñ ko ko jëriñ loolu nag taxoon na paa bi itam am cofeel ci moor lool papay Marème ba taxoon na moom itam bëgg-bëggam nekkoon na moor mii may ko doomam ji di Marème mu yor ko ndax xam na ne mag la te ëllëg dafi jóge te doomam ji di Marème doom ju baax la ju sonn ci moom la kon lu baax la war a am te am lu baax mooy nga am ko xamne ne doomu julit la te jang na te yar nañ ko te itam bëgg na la te gis na ne moor ku bëgg maram la kon sa doom boo ko bëggee ko am alal dedet dohol xol ko am alal da ngay xol ki nga japp ne mo gën ci mom te mën na ko yor bu rafet nga yéene ko ko so xolé ko am alal day melni bu go sa doom da nga ko bëgg wanter wala da nga bëgg commerce ci kawam lol taxon na pa bi nak yéene won mor lol marem waye gis na ne ñom ñaar xaritoo lañuy dundu, bëggu wax lenn luy niru wàllum sëy ba xaritoo gi di yàqu taxoon na ñoom ñu xawoon cee nëtër li dal papay Marème moo dal papay Mor kon dara doxul seen diggante ngir sëy bañ a am lu dul rek ki nga xam ne mooy Marème ak Mor ñoom ñaar kersa gi ne seen diggante dañ ba ku nekk xam position moroomam ñu mën a dox loolu ba sëy bi am ki nga xam ne mooy Mor itam ku jàmbaare la yaafusul ndax bis yi nga xam ne jàngul dafay dem di def ambulant ngon gi mu di dem def ay cours de soir manam di jangal ay nit di len fekk sen keur di len jangal ni koy fay par wer mu bolé ko bourse bi mi am ndaysan ci non itam mi tam gis ne moor mi day bu ko amé comme borom keur dina am ku bax ndax itam bëgg na ko te gis na ci mom jikko yu rafet te itam nak ñoom ñaar suñu andé jappal ma jappalé doon kenn do nango bayé moromam te bu boba keur gi dana neex lool ci nonu nak la ku nekk ci ñoom ñaar am yéene li nga xam ne mooy projet mariage dox seen diggante waaye kenn ñemewu koo wax moromam noonu la seeni sœur maanaam moor ay sœuram noonu lañ ko bëggee waaye dañoo jàpp ne moor bëggul ndaw si xarit la ko jàppee naka noonu itam seen papa yi noonu lañu bëggee loolu benn jamono moor nekk seen kër nga xam ne nekkul université maanaam jàngul benn bis ki nga xam ne moom mooy mareem woo ko téléphone ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan nag jamono yooyu moor a ngi kontaan lool ni mu tëddee ci lal bi jaaxaan delloo bunt bi jàpp ne kenn nekkul ci néeg bi muy waxtaan ak xale bi jigéen bi ñu waxtaan ci ay sujet yu bari nga xam ne ku dégg ni ñuy waxtaanee xam ne kii dafa am cofeel ci ki muy waxal te ñu mu ko wax bi mu waxee noonu jël temps bëggul waxtaan bi jeex ba ni nga xamee ni yàgg na lool bi mu peree nag ba coupé téléphone bi teg noonu tëdd daal di wax na cey man de xale bi xaw nan laay def rek ba wax ko sama cofeel ci moom suma amul soxna ba heure bi ginaaw yalla mom la ndax mom suma ko takul duma sey kenn ndax moy jigen ci gën ci man te ñak xam mbeugelam ci man rek mote tee ma wax ko li am ndax bëgguma sama xaritoo ak mom yaq waye ndeke bi muy wax lolu rakam bu jigen bobu di faatu mo ngi leen doon deg ndax rakam bu jigen bobu di faatu dafa dugg ci neeg bi jamono bo xamé ne mort dafa dello buntu bi te tëju ko tëdd wan buntu bi ginaaw faatu nak dafa tam di duggu di dox nank ndax bugul di déranger mor fekk muy nelaw waye bi muy dugg ak mor di wax lolu nonu nang mu daldi di daldi daal di gennat daldi ne ah kon mor li wax ñun ñep day suub rek waye mom bëgg na marem nonu nang la xale bu jigeen bi daldi di jël téléphone am rek daldi di marem bim ko wowe nak marem daldi di koy décroiser mu ne ko na nga def sama rak ji mbaa yaa ci jàmm noonu marem jàmm sante ak moom mu ne ko rek dafa am nouvelle bu ma la bëgg a wax ndax sa xarit bii di moor dalaa waxul li xew waaye daf laa bëgg maanaam dafa am cofeel ci yow te bëgg na nga nekk soxnaam bi mu waxee loolu rek Marème dafa daal di coupé cey faatu faatu mii xale bu jigéen bu pànk la fii nag la ñuy yemale épisode 1 bi ñu jox leen dig daje épisode 2 ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf daw leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm àndil jamono bu nekk seen production islam ca kanam